Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour de ce 15 mai 2024 ginnaaw bi nga xamante ne lii di paiement dette bi jëmale ko ci wàllu njiw mi ci wàllu mbay mi nga xamante nawet bi mi ngi tàmbali kii di le ministre de l'Agriculture Mabouba Diagne yëkkati woon na ay cadeau dans di ne fay nañu bor yi ginnaaw bi ñu leen joxe délai maanaam le 10 mai mu wax ko ci lii nga xamante ondu RFM Qui di l'observateur dans le di koy démentir lépp lo xamante dal gis nañ ko ci dama bëgg ñu déglu ji ñaari version yi nga xamante ki di le ministre de l'Agriculture Mabouba Diagne jox ko sénégalais di laaj ban mo ci dëgg observateur mo am dëgg wala le ministre de l'agriculture en tout cas ñi di yi dara ci li nga ni lañ leen ñaari discours yo xamanteni ben ci le ministre de l'agriculture di Mabouba Diagne. nation bo xamni ni dañ ko intégrité éthique daf ci Sénégalais né euh, ne commencé euh, plus de quatorze milliards fay nañ leen sur les dix milliards qui ont été certifiés par par par par service mhm. campagne 2021 2022 et 2023 plus de 14 milliards fay déjà vendredi Et le après vérification comme premier ministre euh, insisté instruction yim que les factures vérifier confirmer leen ñu mhm. milliards fay nañ vendredi et trésor bi dina fay li rek parce que confirmation bi euh, weekend bi yëpp équipe yi ñoo ngi ci doon liggéey. Mhm. jërëjëf. bi yëpp ñaata la. Euh, euh, bor bi yëpp c'est tourné aux aux aux environs de quarante et un milliards. Mhm. mais dafa ci RFM leeral na ca mbir yi na mu demee ñu déglu ko dellu si waat. paiement yi nga xam ne ni certifier nañ leen depuis vente montant total bi dix neuf milliards la. pour les campagnes de deux mille vingt et un deux mille vingt deux et mille vingt treize milliards fayeegum eh, nañ ko ci vendredi bi passé te su ngeen soxlaa eh, preuve yi eh, sama service mën nañ leen jox preuve yi lundi le treize mai bi dinañ fay li li des dafa a procédure boo xam ne ni moom la ñuy confirmar pour vérifier ak confirmer facture yi comme ni ko premier ministre bi waxee mais fay bi commencé nañ depuis depuis vendredi 13 milliards de nañ ko ci vendredi li ci kon ñoo déggandoo kaddu yi nga xamante ni le ministre de l'agriculture di Mabouba Diagne yëkkati na ko muy deuxième VAR boo xamante ni indil nañ ko ko ginnaaw première fois bi mu présenté li nga xamante ne mooy ay matériel agricole d'un montant de 185 milliards Macky Sall bàyyi ko fi mu daal di naan ñoom ñoo ko dajale ñoo ko jënd ñoo ko indi Sénégal muy benn contre vérité sénégalais yi foog ni foofu la yem waaye fii tamit dañ fi jàngaat beneen contre vérité su taxawee ne ñi ngi yoral ñi nga xamante ni mooy agriculteurs yi ak semenciers yi ci RFM lu tollu ci 46 milliards C'est fay nañu dembu ci altiné bi manam lu tollu ci milliards ak ñent donc li ci dess ñu koy jema 46 milliards la déclaré fofu mu ñew ci néna 19 milliards la ci 19 milliards yi avons 14 milliards entre 46 milliards et 19 milliards yi ban mo ci deug ñaari ben ministre moko wax muy en tout cas dafa nek ci diversion bo xamanteni je crois que du li lañu soxla ci suñu ay autorités ak nu mu mënta demee taxaw leen ngeen wax ak askan bi dëgg kon je crois que man damay sukkandiku ci propos yi nga xamante ne observateur wax na ko mu dellusiwaat di weddi observateur mais ba tey jii moom dafa am ay contradiction RFM milliards la foox ne na fay nañu milliards li des ñu ngi koy jéem a dugal si même jour bi mu dem wal fajiri ne 19 milliards la diggante 46 milliards ak milliards xool ngay wax génneel preuve yi génneel documents yi nga brandir

ci benn jour naka la benn ministre mën a yëkkati ñaari kàddu yoo xamante ni méngoowul ba noppi muy woote étiquette ci wàllu information ñun suñu liggéey ni nga koy def nu mu waree yéen a war a def seen liggéey nu mu waree maanaam mooy lan ngeen wax askan bi lan mooy dëgg mais soxlawuñu ay ministre yoo xamante ni li ñuy wax askan bi dara du ci dëgg.